ma duggaat rek sama sama moom. xaw ma fa fa fa sumi sax. est-ce que kooku yëlu ko jë jë ma ko. salaamaaleykum. jërëjëf na ngeen def waay. yéen yaay booy. ok voilà situation baa ñu continué waat dama beneen beneen quartier ba léegi parce que c'est la c'est euh, li nga xamante ni moo jëm ci euh, inondation yi euh, comme vous le voyez donc ndox mi jël na ko jamono ji ñu wanaat leen beneen quartier boo xamante ni jamono ji moo fi nekk si situation wu banlieue bi donc ba def mode xuus jël yére yi dugal ci biir ndox mi kooku <laughs> réew mi lañ wax boo nee réew mi da dem ci jafe-jafe yi nga xamante ne réew mi ngi koy nekk donc maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo ngi suivre jamono euh, dama dama dama benn quartier ñu benn maire donc yaay booy ndox mi nu jafe-jafe xanaa yàq rek sonn na na suba li yow ba leen dékkuno suñu doom yaa ngi ne toog amuñ fu man laay dañ leen aj magasin gis nga ne ma dem yar yëpp ma soos a amatuma ko yëpp a tooy. xool xale jigéen yaa ngi yi ne moom ñëpp a yàqu. mbedd maa ngi ñaan ñu ñaan dimbal nañ ñëw ci ruq ceeb ceeb jiwu géej bi nañ ñëw. mais mais mais am ngeen canal lu waral ndox mi ndox mi. demul ñun canal bi ñëwul ci ñun ñun amuñu canal amuñu amuñu riga kër yëpp a fees sama kër gaa yi ne yow boo sagar yaay ni taxawaar ñi kër yaay ni ndax ndax jëm ngeen a jokkoo ak maire bi mu yónnee leen ay oto wala wala maire bi jokkoo wu noonu kii demoon nag te ca kaw ca doon ñëw ba léegi may ñun ñoom mosuñu fee dugg sax xool ñu ana amaroot mi nga ne moom moo fi nekk amaroot da moo ñu dimbali fii ndax liggéey bi moo ko fii bu du woon moom tey kër laa may ñaam Amadou bu dul woon moom tey làmbaay ñaaw ñoo ngi ñaanal Amadou la yàlla gudd fan lu mu am benn ko te ñëpp xam nga ña faraloon baax baax dama ca tel laay wax nañ ñëw jàppale la moom baax daa fi nekk jàppale tey yàlla tax ah, waaw Amadou woon moom te ñoo ngi woo Amadou mu ñëw jàppale la voilà gis nga kër yaa ngi nii waaw donc ñu ñu continuer rek man li nga xamante ni moom mooy ndox mi xuus bi moom xaw na métti lool parce que bon jafe-jafe yi <laughs> mooy loolu waaye dañuy dañuy dañuy def comme comme noonu wan leen li nga xamante ni moom mooy euh, beneen beneen quartier xool ba xam nan la fa situation yi demee ñi aussi def nañ seen seen méthode pour évacuer li nga xamante ni moom mooy ndox mi donc dañuy dañuy dox rek dem beneen beneen quartier sëñ bi ma ma ma ñu dem beneen quartier xool nan la fa situation bi demee mais je pense que c'est c'est tout Yeumbeul qui a été impacté c'est pas ndax euh, lan moo am ci yeneen ci yeneen quartier yi mais en tout cas euh, fii moom ndox mi euh, jël na lu bëree bëri bëri voilà dañuy dañuy defaat noonu rek xool euh, <laughs> donc je pense que instant bi même alentour bi sax li nekk ci ginnaaw aussi ça a été euh, envahi par les eaux on sait comme ni koy waxee manque d'infrastructure bi moom moo ko moom ko andi ou bien mais en tout cas daal c'est c'est c'est tellement difficile pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk Euh, s'il y a des personnes yi nga xamante ne ñu ngi nekk euh, jamono ji au niveau euh, donc de la commune qui voient ces images aussi ils peuvent donc envoyé des des hydrocureurs pour que l'eau puisse être évacuée normalement mais en tout cas ce qu'on peut constater en premier lieu donc mooy fii moom jafe-jafe bi foo ko foo ko foo ko takk weesu na ko c'est c'est difficile c'est difficile Euh, <laughs> mais moi, mes, mes, chaussures ont, ont été volées euh, en plein direct. Donc, puis vous voyez ça, am na tel bu fi nekk euh, mais je crois que problème bi yëpp c'est ce sont les les les rigoles ñoom ñoo ñoo ubbiwul boobu léegi moo tax ndox mi xaw a bloqué tuuti mais fii am na tel bu fi nekk et je pense que ça devrait pas avoir problème d'évacuation d'eau ça devrait pas être xaw ma ndax. rigole yi mooy fatt ou bien euh, dañ ko ubbeegul mais booba léegi je pense que fii moom euh, waru am euh, problème d'évacuation de ñu jéem a defaat la même chose jéem a jege xool ba xam naka nañu duggee ci biir ci biir ndox mi voilà en tout cas fii mooy terrain usine ndox la usine ndox fii moom la ñuy defee distribution ndox mi fii aussi parce que buñ taalee li nga xamante mooy machine bi nekk fii ndox mi war na mën a gaaw dem en tout cas daal comme vous le voyez mun ci ma euh, ay risques la lay jël pour pour pour dem ci nga xamante ne moom mooy euh, jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi ñu ngi koy ñu koy dund mais en tout cas daal euh, foo ko tatt weesu na ko comme la le voyez dans ces li wër fii yëpp ay ndox lañ si def naa benn tour boo xamante ni côté yi nga xamante ni jaar naa ko yëpp vous voyez que ndox mi moom moo ko jël jamono ji Euh, je pense que ça ça ne devrait pas être comme benn quartier boo xamante ni euh, on parle d'autorité yoo xamante ni ñoo fi nekk y a y a le ministre Amadou qui est là a le le maire Bara Gaye donc c'est eux qui devraient régler ce problème maman man de jaa euh, ngi def donc ñu en tout cas daal ndox mi ñu ngi dem. Euh, petit à petit mi ngi dem ndànk-ndànk euh, rek mais sax bi moom ba léegi demagul ñu ñuy continuer euh, di nga ci ce tous les toutes les maisons qui ont été impactées par par ces eaux comme vous le voyez dans ces images donc euh, quand on parle d'un pays émergent et que ces gens en situation continue de, donc d'avoir dans certains lieux je pense que cette émergence war nañ ko mën a def ci doute en tout cas daal ñu ngi ñoo ngi ñoo ngi wër daal di di dem di xool ñoo ngi ñoo ngi wër dem di di xool daal li nga xamante ni moo fi am fii ndox mi mi ngi wàcc parce que fii des genre pente la nekk ñi nga xamante ni ñoo dëkkee ci kaw ne euh, devrait pas avoir ce problème monsieur le délégué. kon ne inondation yi nu mu demee saa yéen yéen a war a yónnee ak. ah, ah mais mu ngi doog a taw fa. ah Sane mu ngi doog a taw ñun ñëpp aussi biir Ndoré. ñun ñëpp aussi biir Ndoré. ah mais mais est-ce que vous est-ce que vous avez eu après ñu mën def au moins yónnee ay oto pour ñu évacuer ndox. dañuy wàcce mais bala ngay woo ñëw. Euh, foofu yàlla arrêté yàlla arrêté nag donc hydrocure bu uh-huh. il faut gars yi comprendre que ni inondation bokk ci resooru mairie loolu bokk ci resooru mairie il faut gars yi comprendre mairie moom il faut moom li comme faaw mu jàppale population uh-huh. mais loolu loolu ministère da nga ah, mais mais yow mairie nga nekk mais aussi war ngaa génn dem ci dem ci ah, mais c'est le maire qui devrait sortir mi ngi ci situation actuelle uh-huh. li ñu mën a comprendre daal mooy que il faut que ñu comprendre que situation su amee ñu ànd ak xel dafa benn solution bu dul nañ jàppale population bi bu pare nekk fi doon ay hydrocureur rek ay ku nekk mu si jàpp. voilà donc euh, mu nekk ah! euh, délégué comme on peut dire ci biir euh, maire bi. di Bara Gaye di Bara Gaye le maire de Yeumbeul Sud qui a été réélu ci li nga xamante ni moom mooy la maire de Yeumbeul Sud dégg nga li mu wax. Euh, il faut ñu nëkk ba li nga xamante ne mooy taw bi arrêté ñoom ñu mën a xam ban situation la ñuy jël ngir mën a donc euh, li mi fekkee dañuy envoyé des hydrocureurs mais euh, si tàng-tàng bi mënuñu see def dara dara dara dara je pense aussi li mu aussi parce que si tàng-tàng bi situation mënoo ko mënoo mënoo ko rek parce que xamoo naka nakal demee parce que hydrocureur boo ko bëggee déplacé aussi li nga xamante boobu ça aussi ça mérite une réflexion li ñu li ñu wër yëpp ndox la sama koñ gisoo jamono ji euh, donte man fi ma nekkee dafa nekk pant mais li ko wër yëpp ndox la pour dem liggéey suba sax je pense que sa ça sera un peu euh, problème pour ma def li nga xamante ni moom mooy euh, liggéey boobu xaama demaat beneen quartier bi nga xamante ni moo nekk à côté aussi pour xool ba xam situation foofu aussi c'est c'est c'est la même situation asalaamaaleykum maa ngi leen di def waay ah sëñ bi maa ngi ziar waa donc euh, c'est c'est la même situation c'est euh, la ñuy gis euh, ci fii yëpp muy li ko wër yëpp quartier yi nga xamante ne comme ni nga waxee les quatre points cardinaux laa jaar l'est l'ouest le nord et le sud yëpp def naa ko mais foofu yëpp même situation bi moom moom moo fa am même situation moo fa am muy ndox mi moom moom moo wër quartier yu bëree bëri bëri donc lii je pense que Euh, quand on parle d'un pays émergent war na ko leen dépasser mais euh, li ñu naan robinet suñu borom bi kenn kenn mënu koo téye gisoo leen fii aussi euh, c'est c'est situation salaamaaleykum maaleykum salaam c'est situation aussi xale yi jeunes yi ñoo mobilisé ngir génn wan leen li nga xamante ni moom moo fa moom moo fa neex jamono bii même pour évacuer ces eaux aussi donc gis ngeen fi yëpp ndox la que yi nga xamante ni ñoo nekk ci xuur comme ni ko waxee. ñoom ñooy gën a dund li nga xam mooy jafe-jafe yi en tout cas daal euh, fi mu nekk la situation bi métti na métti boo xamante ni ñoom nee nañ waa maire bi si saa si nga xamante moom moo nekk euh, ci ñu jege le maire wax na sax ne mënuñ ko jël benn situation tant que xamuñu ni mu demee jamono ji parce que du jël à la at euh, ñi nga xamante ne jege nañ aussi amut aussi ñoom aussi nañ ko demee mais daal mbir mi ku nekk da nga koy da nga koy jël li nga xamante ne noonu la yaakaar ne noonu la gën a mais en tout cas daal. Euh, lii euh, war nañ ci euh, def des prévention boo xamante ni saa yu amatee nit ñi bañ a dund ni ñu mel gisee ba ci ba ci fond bi ne la lépp ndox la quartier yu bëri instant bi pour ñu génn na canal yi aussi ni muy évacuer ndox mi dafa dafa dafa faible trop moo waral ndox mi ndox mi stagnante ci ci yenn quartier yi nga xamante ne ñoo ñoo ci nekk donc waaye ah, du ma image jàmm tey te xaw kii moom voilà donc euh, am nañu dañuy bañ a feeñ ay professionnels lañ duñ jël image jàmm donc ñu ñu ñu ñu defaat euh, retour nga xamante moom mooy quartier général xool lan la fa mbir mi mbir mi mbir mi demee en tout cas daal euh, mbir mi daal mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ko gisal seen bopp ci ci ci image yi. fi nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy Rewmi Rewmi TV xamante ni am nga aussi yeneen image yoo xamante ni am nga ko sa quartier boo envoyé on va publier ça euh, ci suñu plateforme bi en attendant le lancement euh, de la télévision de de de si euh, à quelque temps am naa def li nga xamante ni moom mooy moom mooy ce lancement mobilisation wu jeune jeune jeune jeune quartier bi. lañ leen mobiliser pour évacuer li nga xamante ni moom mooy moom mooy ndox mi jéem a jàll rek xool yeneen yeneen càkk yi ah ci bisimilah seen bokk yéen seen fi yéen fi dëkk yéen fi situation affaire yi gis nga ni si ndox mi kenn mënul dem te mënul dëkk ñu loolu daal yaa ngi mais est que di jotul aussi yéen ñi nga xamante ne yéen yéen fi dëkk ngeen di wax population bi parce que canal yi day jël suuf di ko bale muy dugg ci canal yi mu fàtte loolu aussi est que yéen si yéen a si sensibiliser population bi. ñu ngi si dañ koy liggéey chaque instant dañ koy nettoyer canal yi xaw ma nu ñu ko defar defar na normal mais ñu ngi si ñu ngi defar chaque instant dañuy defar. Ah, mais mais. ana seen ministre est-ce que si yónnee na kenn ku ñëw xool. gars yi gars yi gars yi gisaguñ kenn. waaw suñu booy bi daal moom comme su dee lay nekk moom des fois mooy ñëw duñ jàppale sa affaire gis nga ko mais kon mais kon am gis ñu ko jox la ñu ah mais kon gis ñu kenn koo xamante ne mooy jóge si amul. ñi fi nekkoon di cooyam daw nañ ñibbi. gisaguñ kenn waaw. ok voilà. <laughs> voilà donc euh, fi mu nekk daal nee nañ euh, ki nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy amut ot fi nekkoon. daanaka ba euh, affaire yi jeexee daan daan daan mes donc et ça se voit ça se parce que am yoo xamante ni bu euh, avant les élections on les on, on les chaque jour sur le terrain ñuy euh, wax ak ñi nga xamante ni ñooy askan wi mais jamono ji moom je pense juste juste kenn koo xamante ni jege nga ki nga xamante ni moom mooy le ministre Amadou Hott gis ngeen si mais au en avant li nga xam ne la ñu ci li nga xamante ni moom mooy les élections tout le temps ils avaient le terrain là aussi il faut il faut oser dire loolu mooy loolu loolu mooy dëgg loolu moo loolu am loolu te loolu mooy dëgg parce que euh, nit ki doo doo doo nëg ba soxla askan wi nga ñëw seen kaw di di euh, à chaque fois vous le terrain jox ñu la jox ñu seen baat nga nga réer maire yi moo war a def mais aussi bu ñu amee autorité bu mel ne Amadou moom dafa war dafa war a def tous les euh, moyens ngir jàppale askan wi mais comme ni ñu waxee ñoom il ne faut que que de la politique ça aussi il faut il faut oser le comme il est ah waaw waaw xam nañ ko baax naa xam naa xam naa dàll yi fekke euh, monsieur Diop mi ngi sànn mbir mi que ça soit euh, DG wala wala wala monsieur Manick Diop sama carax yi sama carax yi dem nañu ci ndox mi waaye euh, dañ naan liggéey askan wi jar na ñu ñoo tudd ñu réew mi donc lépp lu xew ci réew mi dañ ko dañ ko dañ ko war a fësal wane ko ñi nga xamante ni ñoom euh, population bi nga xamante ni ñoo fi nekk donc gis nga bañ defee benn car benn benn tour bu ndaw ñëwaat wàññeekuwaat ndox mi xaw na xaw na wàññeeku tuuti parce que mi ngi nekkoon fii euh, ci watu oto bu bu bula bi mais léegi daanaka wàññeeku na bu bu baax a baax a baax a baax kon mu mel ne kon kanaal yi comme lu may wax ne ñoom ñoom ñooy aussi nit ñi war nañoo mën a bàyyi yenn parce que canal je pense que bu ci bale suuf di ko ci buux voté bu yàgg ndox mi pour mu dem normalement du yomb mais en tout cas daal mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi nii daal ñu euh, ñëw xool canal bi nu fa nu fa nu fa demee voilà ñu ñu ñu xool kanaal bi xam nu mu demee waaw je pense que ndox mi ndox mi ngi mi ngi dem normalement. mais comme fee dafa xaw a def pente moo waral ndox mi mënul ak si fii kon li ñuy sàkk mooy ñu prolongé li nga xamante ne mooy tëli tëli karo bi def genre canal mel nii pour au moins ndox bu ñëwee te du stagnante côté bële dañ koy gis nii parce que sànq ba ñuy ba ñëw côté bi ndox mi xaw nëbboon na li xamante ne mooy canal bi fii aussi gis ngeen ba may dem sànq à côté ndox mi vie doot da ko envoyé mais wàññeeku na jamono ji donc ça veut dire que euh, ces canal même fekkee liggéey bi xaw na euh, am tuuti dysfonctionnement mais aussi am na lu mu jàppale euh, askan wi tuuti euh, ci li nga xamante ni moom mooy aussi ci inondation yi xam ne tam mais waa Ruqube moom ñoom jamono ji ñoom ñu ngi koy di ngàcc ba léegi parce que dañoo nekk ci benn genre pente voilà donc ñu leen di xanaa jox dig daje xanaa ba beneen yoon boutique bi aussi aussi daanaka dugg na ba am lu yàq tuuti ci ci ci mbirum bi. situation yi daal fi mu nekk nii ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ko ñoo ko ñoo ñoo ñoo ko yëgandoo donc ñi ñi bëgg woon na ma image yi kii moom je pense que atelier bi ndox ndox ndox kese la voilà même même boutique bi aussi gisoo euh, am na ay produits yoo xamante ne yàqu na fi muy ay muy ay ay ay peint yu jëndoon yéen ñu yàqu frigo bi sax bu ñu la koo fay donc bu ñu doon daal euh, en tout cas daal euh, pour l'instant benn délégué lañ fi gisagul ku nekk ci li nga xamante ne mooy maire bi ñu Pape Samba nekk ci maire bi euh, euh, bu Yeumbeul Sud avec euh, Bara Gaye mais képp koo xamante ne instant bi donc du donc yaa yaa yaa yaa délégué kii là donc ñu waaw moom moom moom moom nee moom nee kii waaw voilà donc dañuy dañuy dañuy respecté aussi voilà mais mais moom de toute façon moom génn na ñëw bokk ñi nga xamante ne askan wi def constat. Euh, en attendant ñuy trouver euh, d'autres euh, solutions pour mun a régler ce problème des inondations voilà donc xanaa rek dañuy dañ leen di rendre rek l'antenne joxe di daje ba beneen yoon ci yeneen xew-xew yeneen ñuy jotaay fi nga xamante ni moom mooy moom mooy réew mi donc di leen wax ne rek si quelque temps li nga xamante ni moom mooy lancement wu télévision bi di ngeen ko di ngeen di ngeen ko gis pourtant ngeen mën di dund lépp loo xamante ni euh, ci ci ci réew mi la la nekk euh, ak feneen parce que réew nañu wax boo nee réew mi rek fépp foo xamante ne daal doomu Sénégal dañ ko war a gis boppam euh, à travers li nga xamante ni mooy seen quotidien réew mi seen site réew mi la page Facebook réew mi ak bientôt réew mi TV qui qui sera lancé donc voilà ngeen àndoon ak ki nga xamante ni moom mooy moom mooy moom ci. fi nga xamante ni moom moo yëmbal sud euh, fi ñuy wax euh, quartier euh, Touba Thiaroye parce que dafa nekk diggante comme ni waxee sànq dafa partagé wu ci diggante commune bu Thiaroye Gare yëmbal sud a Djiddah Thiaroye kaw mais fi mu nekk nii moom ci yëmbal sud la bokk ñu koy wax fii Thiaroye Minam la tudd Thiaroye Minam ngi noonu kon ba jéggi tuuti dem nag. joxe dig daje nag ba ba beneen yoon euh, ci lépp loo xamante ne moo ñeel wàllu euh, actualité fii ci biir réew mi réew mi